Ce n'est pas du tout hasard nous professeur je dis bien Moussé Cheikh Omar Diagne ci vidéo bi nag duma ko topp histoire am fan la jàngee diplôme wala sax lijaasa yi nga xamante ne am na ko mais damay creuser au profond ci révélation ak recherche yu extraordinaire yi nga xamante ne def na ko dama lay poser seulement benn question bu simple su ma la ne woon palais de la république bu Sénégal ay farmason ñoo ko tabax est-ce que dig ma gëm deuxième question ñu bari dañoo foog ne Gorée mi ngi jóge ci baatu wolof bi nga xamante xamante ne moo di gore muy valeur boo xamante ne nit daf koy am est-ce que su ma la nee loolu noonu ay tappale la di nga ma gëm su ma ne la woon capitalu Sénégal nan la tudd nga ne ma Ndakaaru baatub ndakaar exactement lan lay tekki fan la jóge fan la jóge yow sénégalais nga su ma la ne woon sénégalais lu muy tekki loo may tontu est-ce que comprendre nga influence bi nga xamante ne farmason yi am nañ ko ci réewu Sénégal lii mu nekk ay révélation ay secret ak ay recherche yoo xamante ne moom la professeur daf la koy andil détail par détail étape par étape ci ay téere yoo xamante ne moom ci boppam mooy ki ko xaatim maximum professeur Cheikh Omar Diagne bu ñu toppee ay logique am cest à ni nga xamante ne noonu lay xalaatee ak idéologie yi nga xamante ne moom lay dégager bokk na ci bëgg-bëggam ci réewu Sénégal ñu taxawal fi ab état islamique ñu bari nag ñi ngi koy joxoñ baaraam ci état islamique boobu te pourtant bu ñu arriéré ci histoire Cheikh Omar Foutiyou taal taxawaloon na benn état islamique wax nañ ni ci état boobu noonu moom Cheikh Omar Foutiyou taal dafa doon tere la danse maanaam ndaw rabbin lii nii di tux wala alcool daf ko doon tere même cérémonie de païen yi maanaam ay xumbaay ak yenn xeetu ndaw rabbin yoo xamante ne ceddo yi dañ ko doon def Cheikh Omar Foutiou Tall daf ko doon tere ci état bi nga xamante ne moom ci boppam moo ko taxawaloon professeur Cheikh Omar Diagne dafa nekk benn expert en finance mu spécialisé wu plus précisément ci finance islamique yemul ci loolu aussi war naa ko mën a tuddee ab sëriñ c'est-à-dire dafay jàngale ab enseignant la ci ay institut de commerce yu bari te wuute rax ci doolu aussi am na ci yenn université privée yoo xamante ne dafay jàngale aussi ak yeneeni barabu jàngalekaay yoo xamante ne yu wuute la yemul ci loolu aussi moom bindkat la c'est-à-dire la rax ci doolu aussi dafa nek ben penseur international wala sax buma gëné me rapproché dafa nek ben consultant international nel ben ñaar mon professeur Cheikh Omar Diagne directeur du centre des recherches et d'études en stratégie c'est-à-dire en stratégie finance et administration pour nga comprendre que nous, Wadi Kangam la macha wax nañ ne na lu organisations rax ci aussi formateur en développement personnel et spirituel bu ma taxawoon di wax ay diplôme ak yaatuk xam-xamam fii laay fanaan mais fi mu koy tëjee mooy il est le secrétaire général du rassemblement pour la vérité ñu gën koo miin ci tur bi nga xamante ne moo di ànd ci dëgg boo fàttalikoo bu baax a baax ñi ngi ko créé woon ci atum 2016 pour nga gën a comprendre xaqiixatan fi may waxee damay jël benn ci ay livre am mu duppeeku la république privée du Sénégal tey ngay comprendre que ni bii livre livre gënu ko garaaw li ko waral mooy révélation yi nga xamante ne def na ko ci ak ci méthode bi nga xamante ne moom la ñu tubaab yi naxee ba ñu nu yaay yéey am ngeen indépendance ndeke yoo furaas daal di xëddeem lii ay tappalay neen la man mii Serigne Fallou defoon naa ci benn vidéo muy dëgg-dëgg baatub Sénégal lan lay tekki li nga xamante ne moom laa leen waxoon ci vidéo boobu nag nekkutoon samay wax mu jële ma jële woon ko ci ay recherche yoo xamante ne dama ko defoon li ma gisoon mooy benn tubaab dafa ñëwoon ci waax maanaam ci benn waax bi mu ñëwee mu doon laajte benn gox mais bi muy laajte gox dafa joxoñ bi mu joxoñ yi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci tefes bi foog ne tubaab bi daf leen laaj gaal bi nga xamante ne moom la lañ yore nappkat yooyu noonu ne ah suñu gaal ñu wax ne baatu Sénégal foofu noonu la jógee lii boo fàttalikoo bu baax a baax mën a Sëriñ Fàllu borom dindi ak saam tabax jumaay dem màkk man maa la ko waxoon duma ko weddi mais moom la professeur Cheikh Omar Diagne weddi na samay wax ba mu set wicc wax na ne ñun sénégalais yi normalement waruñu woon a tudde tur bi nga xamante ne moo di sénégalais waaye Sénégal wala Sénég lañu waroon a tudd maanaam yow mii di ma seetaan normalement kenn warul la woon a wax sénégalais waaye snega wala snek lañ la waroon a wax. bi nga xamante ne am na suñuy indépendance nag ñi ëpp ci sunu maam yi dafa am benn erreur boo xamante ne dañ ko defoon muy considérer français yi comme des amis maanaam comme suñu ay xarit yoo xamante ne dañoo am ay lëkkaloo yu yàgg ci histoire. dans nag faw ñu dimbali ñu ci yoon bi nga xamante ne moom lañ jël mu di yoonu indépendance mais nag li nga xamante ne moom la ñu fàtte te moom professeur Cheikh Omar Diagne mu souligné ko mooy qui n'ont pas d'amis n'ont pas aussi d'ennemis mais ils ont seulement des intérêts ngir tuba bi nag wéy di ñu nax ngir tuba bi wéy di contrôler suñu ay xel dañuy utiliser léeg-léeg sax ñu ñu doon foyee imaginel nga am réew ñu né réew mi ñing ko tuddee ci benn question boo xamante ne ay erreur la mu nekk ay erreur yoo xamante ne kenn mënu koo comprendre diw moo joxoñ dans ce cas là Sénégal lay tudd bu ñu xoolee capitalu Sénégal bi nga xamante ne moo di Ndakaaru muy dakaar wax nañ ne mi ngi jóge ci baat bi nga xamante ne moo di tamarin maanaam Dakar imaginez ça bu ñu xoolee Gorée itamit wax nañ ne ñi mi ngi jóge ci baat bi nga xamante ne moo di Ngor lii nekkul lenn lu dul ay tappale ak ay nax yoo xamante ne tubaab bi dañuy jéem a utiliser pour seulement réeral ñu mais nag objectif bi tubaab bi am ci réeral ñu mooy lan muy jëf ju ñaaw ji nga xamante ne bàyyi na ko ci sunu ginnaaw ñun génération bi nga xamante ne ñoo fi nekk actuelle duñu ko mas a xam moom professeur Cheikh Omar Diagne wax na ne turu Dakar bi nga xamante ne moom lañ gën a miinee capitalu Sénégal bii nii di Ndakaaru mi ngi jóge ci benn tubaab bu ñëwoon plus précisément Soumbédioune mu doon wuyoo ci turu Jean Pierre Dakar. exactement ci Jean Pierre Dakar moomu noonu baat bi nga xamante ne moo di Dakar bokk ci santam foofu noonu la suñu turu capital bi. jóge bu ma jëlee gore wax naa ko sànq ñu foog ne mi ngi jóge ci baatu ngor déedéet mi ngi jóge ci benn île boo xamante ne mi ngi nekk plus précisément ci réew mi nga xamante ne moo di Pays-Bas ñu gën ko miin ci tur bi nga xamante ne moo di Gorée Overflag mais nag boo demee ci recherche yi am na ñeneen ñuy wax sax ne gore mi ngi jóge ci benn baat muy baatu Goderet bu ñu ñëwee aussi ba ci indépendance bi nga xamante ne Sénégal wax nañ ne mi ngi ko am ci bésub le 20 août ci atum 1960 mu jege woon bien sûr ci éclatement fédération Mali moom professeur Cheikh Omar question bi nga xamante ne moom lay posé mooy naka la ñu mën a jëlee réewum Sénégal teg ko ci bopp ñoo xamante ne pare woon sax ngir Sénégal nekk réew mu moom boppam bien sûr mu di socialiste yi parce que bu fekkee ne jël nañ sax ci archive yi Léopold Sédar Senghor moom mi ngi doon mi ngi doon séentu Sénégal amoon indépendance vingt ans après mille cent soixante maanaam Sénégal amoon indépendance ci atu mille neuf quatre-vingt par contre bu fekkee ne jël nañu Mamadou Dia nag moom mi ngi doon espere Sénégal am indépendance ci daar daar bi maanaam ni mu gën a teelee ci jamono ji nga xamante ne ne coup d'état nañ ko moom Mamadou Dia ba mu écarté wu ci jamono jooju tembere Sénégal ñi ko doon diriger nekkuñu woon Sénégal noonu mais extérieur lañ ko doon diriger. moom professeur Cheikh Omar Diagne mi ngi évoqué ne am na ñu bari ñoo xamante ni ñi ngi ci gouvernement bu Sénégal ñu ëpp ci ñoom dañuy jot ay ordre maanaam ay ndigal ndigal yoo xamante ne dafay jóge directement ci ay loge maçonnique ci jamono jooju nag ci jamono jooju nag ñaari choix lañ am benn bi mooy jëfe ndigalu faramason yooyu noonu di leen jox beneen bi nga xamante ne moo ci topp muy jëfe ndigalu askan bi mais nag malheureusement askan bi mooy demeurer loosu-maçonnerie gi continuer encore une fois di am doole ci réewu Sénégal doomu baadoolo yi jël gaal gi di songu mbëkk mi ba tey itamit bu ñu ñëwee ci terme yi nga xamante ne andi nañ ko fi muy mondialisation mu nekk ay système yoo xamante ne ñoom seulement ñoo ko fi andi te bokk na ci seen objectif moo ñu contrôler gouvernement yi nga xamante ne moo am ci àdduna bi ba objectif bi ñu am mu di nouvelle ordre mondial ñu daal di koy wëyal. ba tey itamit junj naa la ko ci introduction bi muy pale de la république ban lien la am exactement. ak faramason yi pour nga comprendre fi may waxee xaqiqatan faw ñu song troisième partie ci livre Cheikh Omar Diagne mi nga expliquer xaqiqatan que ne construction wu palais de la république mooy fi nga xamante ne fa la Macky Sall nekk te léegi mu abal ñu fa incha allah construction palais boobu noonu dafa am ay lien ak ay loge maçonnique parce que boobu noonu palais ñi ngi ko liggéey exactement ci atum 1903 ci Ernest rum moom Ernest jëlee ndigal ci beneen waay bu yooyu ci turu Gaston Dumergue, mom mu nekk benn faramason boo xamante mi ngi bokk ci loge di wuyoo ci turu l'écho du Grand Orient en l'Orient de Nîmes ci atu 1900 yemul ci lool de même bu fekkee ne sax dañ kumpa sax yóbbu na la ci livre bi même date bi nga xamante ne moom la ñuy amal indépendance muy fête de l'indépendance bésub la 4 avril am na ci ay secret yoo xamante ne am na ci mu nekk ay secret maçonnique donc man question bi ma war a poser mooy est-ce que mën nañoo développer Sénégal bu fekkee ne yii nii xeetu base la am ci jamono ji nga xamante ne moom lañ toll nii nag ak doole ji nga xamante ne farmason yi am nañ ko ci àdduna bi wala sax góor jigéen yi képp koo xamante ne taxaw nga pour xeex leen rek ci jamono jooju cible ngay doon moo xam da nga tudd Cheikh Omar Diagne wala nga tudd Ousmane Sonko wala beneen tur une fois que nga jóg di sulli seen ay mbóot rek wala sax nga di leen attaqué moo xam directement wala indirectement duma la ko nëbb sawaay mën nga jënd sa payaas bu baax a baax jeune ne sais pas wala Cap Manuel bu fekkee ne benn fan sax ne di ko fa fanaan peut nag mënoon naa gën a yaatal vidéo bi donte ne itamit am naa ay contenu ci histoire am moom jaar-jaaram ak réalisation yi nga xamante ne mi ngi koy def mais lii dafa nekk benn petit découvert boo xamante ne dama ñëwoon seulement pour ànd ko ak yow am ci ay point d'interrogation yu bari yo xamantene nak mi ngi ci vidéo bi mais nak bu fekkee ne bëgg nga ko xam mën nga dem directement je ne sais pas Amazon ou bien mën nga fa fekk merci beaucoup yow mi nga xamantene ne nga vidéo bi du début jusqu'à la fin dans ce cas là ma jox la dig ba benen yoon ci benen vidéo bo xamantene inshallah incha taala moy gëna